L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. yoo xam yow xalaatu ko def sax waaye yow yaa ko jéem a sa bopp koo xam nit yàlla nga ko nga ñu ne nga ah loolu da koy wàññeeg leer rek xam nga loolu ko tey loolu yaa ko tey yaa gën a tey ak la ah, lu mu def ci lu ne nga ah loolu daal nun daal bayee boona noppi rek ñooñu suñu seen du nitu xam nga not xel mi xel mi mi ngi doon jéem a fudd di jéem a mais yaa ko najaat ci suuf ne ko tëddal noppil waaw yaa ko najaat ne ko noppil kon nag xel moomu la war a dundalaat suñu xel yi nag war a yeewuwaat ndax ñu yeewoowaat su mar dan asfala eh, asfala taqwim ji yàlla waxoon ñu mën ko yeewoowaat kon xel yi ñu rey nda alquran ak moom toujours mi ngi fi di leer moom mi ngi fi mais xel yi la jëlul utiliser ko fab batari boobu muy alquran ak ji def ci waaw waaw mooy xel mi la ñu xas tëj ba nangootu jël dara loo wax lu ne ñu ne loolu daal nun xamuñu nun demee nun daal bay boonu topp seen gannaaw rek te muñ loolu kon li koy saafara mooy jël jëlaat aqida mooy pas-pas bu ñu ko bëggee jël bu ñu ko sukkandikoo ci gént bu ñu ko sukkandikoo ci lenn nañ ko delloo ci alquran jële ko foofa bu ñu ko fa jëlee ba noppi nag pas-pas boobu nuñ ko war a jëfandikoo nañ ko jànge ji ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat da xam ne yonente bi dong mooy benn nit boo xam ne da nga dem yowmal qiyaam yàlla laaj la noo dëppoo woon ak moom ak noo juyoo woon keneen comme mën a doon yàlla du la laaj loolu ndax keneen comme mën a doon mënoon ngaa dund ba faatu du ngeen daje wala mu njëkk laa dund ba faatu du ngeen daje te yàlla du la ko laaj wala koo naw ci diine ba jàpp ne kooku ko xamul moom la a mën a jaare beneen waaye du mën a jàll yonent bi dong mooy benn personnalité boo xam ne ku ne ci biir lislaam te xamoo ko xamoo woon ak njubam soo demee moom doo gindiko keneen ku mën a doon nag ku jamonoonteeg moom yàlla baaxee la ci moom mu doon woote ci biir yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga jaar ca lam doon woote loolu sa xéewal la na la mbir mi maanaam yonente bi yow xawoon na la sori te xëy na sa xëy na say moye jàng mayu la nga mën a xam lam doon dund lépp am ku ko jàng di ko jëfe di la ko jàngal di ko jëfe ci sa kanam nga ànd ak moom loolu sa xéewal la sa tuyaaba la ka ko def feneen i def ko feneen su ko defee loolu mooy li nga xam ne mooy gindi nit ñi maanaam di def nattukaay bi daal mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñetteel bi itam ñu jàpp ne lépp loo xam ne dafa laal pas-pas wala mu laal wàllu jikko jullit waru koo jéggi fenn ci ku gëmul yàlla bokk na ci jullit ñi li leen gën a sànq fi mu ne lu laal pas-pas mooy nu ñu wala doxale adduna te loolu dafa laal pas-pas ak nu ñu war a yare nit ñi loolu dafa laal wàllu jikko loolu ñu koy jëlee ci koo xam ne dafa gëmul yàlla loolu mooy li nga xam ne day yàq seen pas-pas moom itam te yàlla dane woon in tuti'u allasina kafaru yaruddukum ala aqabikum fa tanqalibu xaasirin koo xam ne dafa gëmul yàlla saa boo ko toppee lu tuuti tuuti tuuti tuuti ci lim lay woo dala la di la delloo di la arrière di la arrière ba nga defaat yéefarte doo ko ko yëg te loolu mooy liñ nuy def fi ne ñi gëmul yàlla ñi nuy jëflanteel ñu ngi nuy pousse di nu delloo ndànk nag di nu delloo ndànk nag foofu la ñuy dellu ba mujj nekkaat ay yéefarte duñ ko yëg boo seetee wàllu col yi ñuy sol léegi ay at ci gannaaw rek kenn xalaatul woon ne nit ki dana mën a sol loolu dem nañ ba miin yooyu moo ci desati kay noonu la ñuy gën di pousse di gën bi lislaam duutuñ tax ñooñu nee na duñu mën a d' accord ak yow li feeg bàyyiwoo diine ji complètement fekk leen ci liñ ne maanaa nga naan man julit bu moderne la julit la waaye man damaa bokk ci parti sangam man damaa fekke fu ñuy naan sangara man damaa joxe loxo man damaa lu ne nga ne mën naa koo def ndax bëgg ñooñu enquêté ci seen biir boole la ci nit ñi ñooña loo gën def ñu boo gën a ñëw mu baax ngay ñëw di ñëw ba wàcc sa diine complètement nag moom la ne walan tarda ankal yahudu walan nasara atta tattabi'a millatahum xul inna hudallahi huwal huda ñooñu nga xam ne ñooy yahood yeeg nasraan yi te yahood yeeg nasraan yi nañ dañ jàpp ne jamono yonente bi dong la fi yahood ak nasraan nekkoon ñaari tendance yooyu ba léegi ñoo ne ci adduna bi ñoo yor ñaar yooyu yahood ak nasraan yi ñooy ñaari kuréel yi séq adduna bi ba léegi mooy ba ko yàllay waxal boppam booba nit ñi sax xamaguñ ko woon yàlla ba muy tudde naan charq yaak xarbiya booba nit ñi baat bi ñuy wax léegi xamagul woon te adduna bi fi mu ne séddana dañ ko ñaari xaaj ne nii mooy waa sow te mooy nasraan yi lii mooy waa penku te mooy yahood amir gak ñi bootu ci moom ak ñi ànd ak moom lépp ñooy ñaar ñoom la ñu tuddee waa sowu te ñëw si bi jig ña bootu ci ñoom lépp ñoom la ñu tuddee waa penku ñooñu boo ca seetee ñee ci seen xalaat ci yahudi la sosoo kon li yàlla ne woon nooru samawaat wal ard moom ci yàlla lay jóge waaye du nekk laa la sarqiya wala xarbi yàlla waxoon boobu baat boobu ba ñu jëfandikoo terme yooyu kenn xamul woon ne dana dem ba jamono séddalikoo ba ñaari kuréeli adduna bi tudd yooyu mu ne julli nag yow waroo cee bokk fenn bul dëkk sow bul dëkk penku dëkkal ci nooru samawaati wal ard yow loolu kon foofu la julli di war a dellu jàpp ne amul dara benn tëralin ak lu ñu ko rafet rafetlu mu war koo mën a jële ci ku gëmul yàlla war koo mën a jëfandikoo léegi nag gannaaw bu ñu leeralee pas-pas yii ba noppi nii nga xam ne bu ñu seetee ku datt sa bopp ñun ñëpp daanaka ne nañu ci biir ndax dellu gi nag day tekki ne maanaam nit ñi ndax seen julliti Sénégal bu ñu waxee li nga xam ne moo am julliti Sénégal yépp fi mu ne kenn ku ci nekk am na fu muy adressé wu am na daara joo xam ne ca la adressé boppam yooyu daara rek laa koy tudde école la rek yu ñuy jànge daara ja rek loola waru mën a teqaleeg moroomi jullitam yi ci des maanaam fi mu ne jullit ñi teqale ko gi ñu teqale ko ci biir Sénégal bu ñu wax ne ne tarixa yi moo leen teqale wala tur yi ñuy tuddoo moo leen teqale mais pas-pas yi moo leen teqale pas-pas yi ñoo bokkul mais su fekkoon ne tur bi turu kaw dong la turu école rek ma ne nga mel école sàngam laa jànge ñu di la ca adressé rek kee a ànd moo indi juyoo te julit moom yàlla julit rek la ko tudde millata abikum ibrahim huwa samaakumul muslimina min qablu tudde woon na leen julit bu yàgg wa fi haasa li yakuna arrasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala annas fa aqimu salata wa atu zakat wa atasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir yàlla dafa waxoon ne yi diine ibrahima laa leen jaaroo te ibrahima moo leen tudde woon julit bu yàgg julit moom julit rek ngeen tudd mooy ku jébbal boppam yàlla kon nag jaar leen ci santaane yàlla te jafandu ci moom yéen ñëpp yeneen tur yi nga xam ne nag yaa ko dàkkental sa bopp yépp julit moom julit la tudd li ci des nag aw sant la aw dàkkental la dàkkental nag moom fu ne nit mën na faa dàkkental boppam dàkkental yooyu bu fekkonte ne pas-pas lalu ko du juwee julit ñi ndax xoolal ci jamono yonente bi am na ñu ñu daan dàkkental naan kii ansaar la waa lansaar la ñu dàkkental ne kii waa muhaajiroon la ndax loola juwee woon na leen wala teqale woon na seen diggante benn pas contre yi ñu adressé woo ngir école ya ñu jàngee ndax kenn ku ne am na école boo xam ne foofa nga jàngee nga jël turu école booba di ko adressé woo loola waru laa tàqale ak sa moroomu julit moo xam ne daa génn ci benn école bu fekkente ne la ngeen jàng benn la bu fekkente ne la ngeen fas benn la kon li muy tekki mooy dana posé wu benn question ndax day tekki ne kenn mën naa dellu ci pas pas pas ci l'islam bu wér bi ndax dellu ci il faut day laaj sant yi maanaam dàkkental yi ñu doon ci réew mi nga xam naan diw julit la waaye kuréel sàngam la bokk ndax balaa mën a dellu ci pas-pas la pas-pasul islam bu wér dafa dindi sant woowu complètement wala sant bi mën na cee des tem continuer nekk ci biir l'islam loolu bu ñu ko seetloo man jàpp naa ne war naa mën a nekk war naa mën a nekk ci biir l'islam bu wér te sant bi bu ko neexee ndeg bëgg na ko ci mën na koo bàyyi ndax sant dong la dàkkental dong la loola ni muy demee mooy ñi nga xam ne ñoo fi jiite daara yi fi nekk yépp këri daara yi ñuy topp kenn kon ci jamonoonteel ñun amul nit nag su demee ba jëmmam faat la raw la léegi la des ci topp ko lu ca gën a ay mbindam moom amul léegi lu ca gën a dëgër mbindam amul même ku naan gisoon naa ko roy naa ko wala moo nekk le woon nangam ak riwaayaat yoo xam ne kenn xamul wér na wala wérut waaye la gën a wér yow lu wax yaa a natt ca moom la mu kon borom daara yooyu ñun ñëpp faat nañu gisatuñ leen léegi li muy ko bëggee topp dëgg dëgg dëgg mbind ya koo ko bindoon ca la war a dellu waaye wër ta xool ña la koo ko bind la boppam su fekkente ne dëppoo ak l'islam mu jël ko ba noppi adressé wu daara jooja nekk moom la bëgg adressé wu su ko boobaa dana mën a nekk jullit bu wér te du tey dana garder dàkkeentalam woowee nga xam ne moom la yoroon ndax itam ku ne nit ñi doo leen mën a delloo ci lislaam lu may génnuñ ci seen dàkkeental yooyu dàkkeental woo leen génne dugal leen ci weneen fi mu ne dàkkeental woo leen génne rek dugal leen ci weneen fi ne boo ne kii léegi duutu nangam nangam la rek leneen lay tudd gannaaw dàkkental yu mënta ñàkk nag mën nga koo bàyyi ci biiru dàkkentalam ba noppi defar ko defar ko na mbir mi benn rek ñu bokk ko waaw léegi ko loolu dinaa ci jël rek ñaari misaal la ñu war a dellu ku ca dellu jàng la nga xam ne moom la ñu bindoon te bañ a xool ñi leen parasanté la ñuy doxal da war a mën a dund pas-pasul islam bu leen wér te doo ñàkk sant wow dinaa ci jël ñaari daara ci misaal rek lu mel ne daara yi Cheikh Ahmad Bamba lu mel ne daara yi Alaaji Malik Si ñooñu boo delloo ci seen i bind da nga gis ne ñoom seen daara nit ki mën na nekk waxuma ñoom lañ doon jëf man xaw ko ndax jëmoonewuntu ñoo ñu concerné ci ñoom fi mu bind ñoom donte ñoom li ñu bind dafa xam ne ñoom ñoo ko bind koo ci dellu ci li mu nag li wax mooy sunna si yonente bi moom la doon woote moom la doon topplu yow kay kon soo nekkee ci loolu bu la neexee nga nekk ba noppi adressé wu ne ci école am laa génne loola du la wàññi dara bu booba bu dee ci ku mel ne Alaaji Malik ci téeréem bu ñuy wax ci kifaayatu raaqibin soo fa demee da nga fa gis mu naan wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu kafattibaau li si yati istimaal istimaalu min jumlati l sa walaysa nafun ala xobbin bila amalin wa taabian sunnata almuxtaari taxtanimi ok leer na mu ne lu war la lool ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam te sopp ko topp itam nag képp koo xam ne danga ngaa jaar ci yoonam woowu nee na ki ci jaar nag bokk na ci mandarga yi ñu xamee ku ñu war a topp maanaam boobu da ñoom dañuy définir qualité yi ku ñu war a topp nee na kooka mooy kuy jëfandikoo sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon nit ki wër te kenn ci wala topp kenn ci koo xam ne gis na ne mi ngi juyoog yéen sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo xam lu mu dolli ci diine la di ca wéy te xam ne loolu la doon woote sant ko kon mën nga ko continuer jàpp te ku ca gëstu gëstu yu leer ci moom da nga ci a am ay tegtal yu leer waaye ci daara yi si Ahmad Bamba ji nga xam ne moom man ci laa génne ci lay gën a mën a joxe ay firnde yu leer ci loolu yeneen daara ña ca des ña ca génne mën nañ ca gëstu leer xam ne borom ci loolu la doon waate waaye jiit daan leen jox ay firnde yu leer ne ngeen bañ a nag li nit ñiy dund ak ñi ci adressé woo ak ñi wax ne ci école sàngam laa génne ndax bari nañu génn école bokk école te tolloo wuñ da nga gis benn waay taxaw ci mbedd bi boroomu Mercedes romb ko mu naan kooku sama promotionnaire la woon moom mi ngi taxaw ci mbedd bi rek xam nga dugg ci école bokkul ak jot diplôme ba kon buñu jàpp ko adressé woo ci kilifa ku ne ñu jàpp ne ñëpp war a waaw adressé wu ci daara ju nekk te jutoo diplôme ba loo gis nañ ko fi ba xam ne yow gaa yaa ngi ca mbedd may balee ko taxawal kilifa gën a romb nga ne ñoo bokkoon école <laughs> loolu loolu lu muy jëriñ dara la dul jëriñ yow loolu de mooy li nga xam ne moo am moo jar bu baax <clears throat> kon wax ne ku dellu ca la nga xam ne moom lañ bindoon bu dee ci wàllu aqida moom li mu ci wax daf ne man zanna xayrallaahi nii aw yadur fasaaka fi daarayni soo kaddin wadur mu dëppoog li ma doon wax képp koo xam ne jàpp nga ne am na ku la war a mën a jariñ fii wala ku la mën a lor wala ku la mën a jariñ àllaaxira ku dul yàlla nee na adduna coono nga fiy dëkkee àllaaxira soo demee dëkkee coono fa soo kad fa saaka fi daaray ni la soo kaddin wadu coono ngay dëkkee Seexu Seexul Xadim Seex Ahmadu Bamba mu ne al al addurru wa nafu min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani nee na njariñ ak lor ci yàlla dong lay jógee mënta jóge ci ku weex mënta jóge ci ku ñuul addurru wa nafu min al wahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi nee na njariñ ak lor ci yàlla mi maye dong mën a jóge waaye mënta jóge ci koo xam ne soppe la wala ab noonu la gannaaw kon pas boobu la doon jàngale ku loolu mooy pas-pasu l'islam bi nga xam ne nit day gëm ne lor du ko wuti mi def loolu kon soo ko yoree bu nit tuumaal la yow léegi kooku da ngaa ci daaraam ndax li nga woote kon yow kooku gëmatoo ko parce que ñu bari loolu la ñuy soo waxee pas mu may yaram mu yobal xiyam ñu <laughs> bu dee da nga ne sunna laay topp ñu la yow kon toppatoo ko xoolal li mu wax fi zahara lii anna tisaman bil kitab wa bi hadisil mustafa huwa sawab nee na zahara lii leer na ma naññ ne anna tisaman bil kitab jàppandu ci alquran wa bi hadisil mustafa ak sunna si yonente bi nee na huwa sawab nee na amul beneen yoon bu nit war a mën a jaar ba jàll nee na amul amul dara lu ci nit zalima nafsahu allati lam yaxtasim bil al wusqa allati lam tanfasim nee na ku sukkandikul ci buum bu dëgër gii di mu ne rajaa u jannatin yaakaar àjjana bila taaati ci toppoo yàlla bi sunnatil maahi jaare ko ci sunnati yonente bi xoroorun ay nax la yoo xam ne yaati dana teew waaw waaw rajaa u jannatin bila taaati bi sunnatil maahi xoroorun yaati lu tax ne yow léegi boo ne nituk sunna laa ñu lay kon kooku yow gëmatoo ko génn nga ci moom te moom mu wax li kala koy wax toujours rek mooy waa ji duggoon ci école ba te admiwut rek kooka waaw yow boobaa na nga gën a ñemee na nga jëm a konte parce que ñu bari fi mu ne li leen ragal a tey dund sunna leer leen a dund l'islam bu leer mooy ragal a ñàkk adresse boobu ñu leen daan adressé wu jàpp ne suñ ko ñàkkee am na lu leen mën a jural wala am na intérêt yu leen di yàqal te jàpp nañ ne ku dund l'islam bu leer da ngay tàqali kaw ñooñu te fekk na mën ngaa dund l'islam bu leer ñooñu li ma leer mooy suñu dellu siwaat woon ci àdduna ñi ñuy àndal mooy ñuy seet ne alquran ak sunna dong ci la ñuy teg seen biir ñooñu la ñuy àndal waaye keneen fu mu mën a doon luñ la gestu wala suñ ko defal kon man danaa leen ne yow kat yaa fi bindoon lii ba noppi defal ko waaw kon seen bind bi day wujj kon am ne leen ndax li ñoo ko waxal seen bopp daal di joxe joxe na qualité yi ñuy toppee nit li ma la waxoon ne nit dee su ko topp ci juddu dee ko topp ci alal dee su ko topp ci xam-xam dee ko topp ci nguur moom définir na qualité yu mel na yi nga xam ne nee na ku bëgg a topp nit maanaam mu jaarale la ci l'islam na yor qualité yu mel nii daf ne man talabal wusula lil jalili fal ya'tasim bi sunnati rasuli képp ku bëgg am ngërëmul yàlla jafanul ci sunna yonent bi mel na am ñu ne ko nag ah sunna si yonente bi am na ñëpp ñëpp mënuñu koo xam am na il faut ñu ñuy jël di ci ñoom daal ñoo xam ne jàng ko ba xam ko ñu def leen maître teg leen ci kanam maître boobu wax na nu muy mu ne bi an yulaasima mutian la yamil fi zahirin wa batinin anis na seet topp